important de le rappeler euh, Bamba Ndeye Fatou peut-être pour terminer ci sujet bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a wax muy jëm euh, ci euh, mbirub mairie bu Dakar mm-hmm. ak ki di Barthélémy Diaz le maire lui-même qui souhaiterait rencontrer le chef de l'État Bassirou jomay fay parce que depuis booba tey nit ñi ku si nekk yaa ngi poser des questions ana ana ana Barth ñoom dañoo xuloo et autres mais tey Barthélémy Diaz di maire bu Dakar et mënul dem sans pour autant liggéey ak le lecture ngay def ci ci propos yi mu yëkk ci démb euh, bi muy amul benn réunion au niveau de la mairie. mais dans le fonctionnement de l'État. Mhm. mairie yi kan moo leen coiffé le ministre des collectivité mhm. territoriales. Mhm. kooku mooy tutelle bi. te ministre boobu ci gouvernement la bokk. président moo ko jiite. de surcroît mairie capital bi. capitale bi nga xam ne moo abrité palais présidentiel bi. mais aussi moo abrité yenn structure état yu bëri mhm. kon yaakaar naa ne ki ko jiite muy le premier magistrat de la ville kooku noonu dafa war mu toog ak président de la république mhm. parce que ville de Dakar c'est budget ay milliards milliards la du ville bu ndaw mhm. du mairie bu ndaw ki ko yor pour mu mën a liggéey Dakar faaw mu liggéey ak état sinon xeex rek moo ciy am soo seetee maire yi fii janoo ak état yëpp pour ñu mën a dérouler dafay jafe. Mhm. ndax yenn levée de fonds yi duñ ko mën. Mhm. ci emprunt obligataire déggoon nga biñ ko fi bloqué ci mairie Dakar. Mhm. avec Khalifa Sall avec Khalifa Sall. donc maire Dakar boo seetee sax bu njëkk ba euh, souvent mairie Dakar euh, ki ko doon jiite ab avant xalifa Sall da doon nekk ku bokk ci régime bi. pour mu gën koo mën a yombal liggéey bi. Mm-hmm. mais depuis un bon bout de temps depuis Khalifa Sall ci la ci ngay gis maire Dakar nekk un opposant boo xam ne mooy toog ci bopp maire bi mais du tee. Mm-hmm. Euh, pour élégance républicaine. Mm-hmm. président bi que maire bi nekk ci partem ou pas euh, moom dafa war a liggéey ak moom daf ko war a recevoir am na droit demander une audience avec le président de la république. bien sûr c'est pas un péché. en tant que autorité administrative parce que maire yi aussi ci agencement de l'État la bokk. donc li Barthélemy mën war dafa war a toog ak et puis président Bassirou Diomaye Faye du président wu ñi ko fal kese ça c'est une frange de la population sénégalaise. ça mais c'est le président de tous les sénégalais. Mm-hmm. kon képp kuy sénégalais am nga sañ-sañu laaj toog ak moom. ci wax ko sa mébét wax ko sa bëgg-bëgg mm-hmm. su ko euh, temps mayee bien sûr mm-hmm. kon Barthélemy Dias gisee président Bassirou si au plan politique lecture bu ci nit mën a am loolu sa lecture politique la mm-hmm. te loolu clivage yi ñoo koy def ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci rang yi mais ñi nga xamante ne bokkuñu ci rang yi gisee wuñ ko noonu te duñ ko gisee noonu. Mhm. c'est pas une chose boo xamante ne dañuy jàpp ne warul am wala euh, c'est venu ex nihilo. Mhm. Barthélemy dafa war a liggéey dafa war a toog ak le président Diomaye. Mhm. d'ailleurs fii day am rencontre yoo xam ne il faut impérativement la présence du maire de Dakar. comment vous voulez que benn animosité di am si diggante bi. il a été élu maire de Dakar jusqu'à nouvel ordre mhm. fii ba ba ñuy demaat élection wala ñu ko ciy demeet donc moom mhm. amul pour di ba a liggéey avec le pouvoir en place mhm. léegi il a fait les premiers pas parce que subordonné la bien sûr mu def premier pas yi pour gis le président c'est pas une occasion pour dire warul di ñëw ñëw ci problème politique yi am parce que problème politique yooyu ci champ politique bi lañ ko amee mais nekkuñu ci champ politique ci champ républicain bi la dugg instant bi c'est un maire de la capitale qui va rencontrer le président de la République ci forme boobu lañ toog. ci cadre boobu la ñu nekk. donc mhm. di ci am beneen lecture politique. Mhm. loolu partisans yi ñoo koy gis et le mhm. président de la République. moom il s'élève au-dessus de la mêlée. Mm-hmm. moom bañ leen ko ba nee na démissionné na sax ci fonction politique am. Mm-hmm. donc c'est pas quelqu'un bu ñuy xoolee ci benn parti. Mm-hmm. c'est quelqu'un bu ñuy xoolee ci ku njaboot sénégalais yëpp. et pour mu réussir liggéeyam sax moom noonu lay war a doxalee. dafa war a doxalee ci. d'autant plus qu'il a appelé à l'unité nationale et et et tout. Fatima fii borom kër yëpp. à commencer par seen TV bii. Euh, du ñëpp gëm sa bopp la ñu milité. te pourtant. président Bougane ñëpp ay employé am lañ. ñëpp lay fay weer. du ñuy bokk gëm sa bopp moom lay jox ñoom lay dolli prime. Mm-hmm. wala ñoom la gën a valoriser wala ñooñu la jox responsabilité c'est pas comme ça. c'est ça loolu nag mooy réew. réew dangaa jaboote ñi ànd ak yow ñi àndut ak yow. Mm-hmm. mais yow euh, ci njiit bi nga doon yow yaa war a jaboote ñëpp jaboot nga. loolu yaakaar naa ne on n'a pas besoin di ko ko rappeler. Mm-hmm. kon moom it foofu lay war a taxawee. Mm-hmm. foofu lay xoolee cette sollicitation de Barthélémy Diaz. Mm-hmm. ci planning am bu ko ci xajalee mu mën koo gisee moom. et day baax ci république et puis moom dafa buggu réconcilier les sénégalais te yooyu bokk na ci pas yi réconcilier les sénégalais mooy fexe ba dissiper. ces nuages yi am ci clivage yi yi am ci xeet yi am ci askan ñenn ñi mhm. ñu mu jël ko effacé ko wane ne moom ñëpp ko fi tax a toog et moom mooy le père de la nation c'est très important président Lamine Gueye pour terminer non man koy Ndeye Fatou wax na lépp <laughs> <laughs> sur la question moom vraiment mhm, mhm. Euh, mais ñu bañ a gisee sax loolu mooy anormalité ça euh, ay xeexu politique moom peut-être àndoon nañ. dem nañ ba benn moment affaire bi ñagas na loolu leneen la mais fii dañu dañu déplacé wu ci beneen champ euh, Barthélemy a été maire de Dakar mais entre temps le président de la République est devenu Diomaye. Mhm. donc je pense que c'est c'est très normal euh, qu'il puisse s'asseoir peut-être waxtaan mu wax peut-être Barth il a des parce que euh, c'est lui le le demandeur de c'est lui qui a qui a sollicité l'audience. Mmh. certainement il veut. Euh, s'entretenir avec le pré président de certains projets mhm. euh, de Dakar et je pense que loolu c'est c'est c'est très normal loolu amul amul keneen ku ciy wax dara da ngaa xamul rek mhm. ñàkk xam la mais nit ñi mën nañu am ay contradiction d'ailleurs